vous allez être servi euh, bien sûr euh, hein, comme nous l'avons encore été, exclusivité son best uniquement pour faire plaisir hein. c'est permis euh, d'envoyer vos textos via le net la page King FM et le JNP ni bien sûr ce vendredi au stade Iba Mar job surtout pas raté il y aura Amzo Dala il y aura bien sûr edmond Flow voilà donc on vous donne rendez-vous ce vendredi à ne surtout pas rater. Après nous deux on va écouter Omzo on t'a le best, le Hein? Avant, il y a aussi Lyrical, c'est Aïdib Dunugis, Angaka hein? Ils sont sadiques, préparez-vous, ça sera du lourd. C'est parti, Omzo danga bëgg a te doo ma conseillé ignorant yow conseillé ay xare juddu fu conseillé big up Papis Diagne sombre conseillé zo mooy indi lu 10 rap gal sen ñëpp naan ya quoi de neuf toujours lu neuf lay teg si table bi primaire la mokkal samay table de neuf gàccu fees yi lay sewol jaaseen tout mel nii géwol su ma deux ba trois bul tiit daa fekk maa dàq pee bi surprise wax mon combien fils na am lu muy bon point fils soin intensif c'est rap c'est compréhensible n'y ko word ni rond point si soleil tic tic attaque samay tic ay atu je attaque les statistiques yi tactique tiki taka toggal teg ay ticket de yàq sama der boo nekkoon tout de ma mise si talent mon publicité ak je suis un peu ma la de de dragon

Faut jaar ba mon ma jour bu bay rap mooy sa date de naissance su làkk français tu as l'air très hébété Ça naa sa ndey te musu ma regretté wax ak sama bro yi dee le la dese kenn du tas bu soloon t-shirt LGBTA waroon nga xoolaat say cours tachanteeg man soo si duggaate juum dix mille revanche résultat bi du changé su ma cat bii rëla yow si jur bitch toog leen seeni place ngeen xaar ñëw laaj leen seen ab bi zoo kan diw bitch jamais de la vie man fuck you niggas anyway fuck you niggas anyway donc tu voulais niquer zo. hahaha bu ma rey tourne clip une nar a toog lay mel xawma indi man la wooy yàgg yaray malak sama son yi bindal sama touré moo ji béy maa ngi port di rali or di nali port lu fort dem sorti sali or bali nord mali su may rap tu perds le nord ni mali foog fen ñu ngay posté ku teg ñu riposté si ngente ngay fop de gën a tuub def vite tente de mosquée jël coupe ni Vicente del Bosque rappé comme jaja def leen di bi man la njaay rap poésie rime bébé aa ëpp versi plaza ëpp classe kuy rattrapage mais sa tu miese baki aan ma góor jigéen nga mel ni raan ma bàyyi sa loxo comme mu faas ça Fox madre, Fox tata Fox son partage che parta cap' je suis mai c'est papa ah, ah, ah, ah, ah. me black apa Nyau sa bame fait, salsa Fox salsa. Cioè, Signata, signata Oh, la signata, le son sonore tout simplement Signada, exclusivité dans le P N G Show. Où sont les fans de Azor Put your hands up! ay hip hop la rap galsen la gars yi ñoo ngi tasaare game bi <laughs> and I will teach you the meaning of Azor is coming back danga bëgg rap te doma ma conseillé ignorant nga yow conseiller ay xare juddu fu conseiller big papis Diagne sombre conseiller zo moy indi lu 10 rap gal sen, ñep nan ya quoi de neuf toujours lu neuf lay teg table bi primaire la mokkal sama table de neuf ah, gàccu fees yi lay sewol jaaseen tuut mel nii géwol su ma deux ba trois bul tiit daa ma dàq pee ni nii surprise wax mon combien fils nako am lu muy bon coin fils soin intensif c'est rap c'est compréhensible ay rond point un soleil tik tic attaque samay tik ay atou di tico attaque les statistiques tik tik de yak sama der kon tout de dama mise si talent peu plus publicité ak bralon ni nga Non la dragon

Faut jaar ba mon ma jour bu bay rap mooy sa date de naissance su làkk français tu as très hébété saaga Ça sa ndey te musu ma regretté Wahak sama bro idée. dee le la dese kenn du kas bu soloon t-shirt LGBTA waroon nga xoolaat say cours tachanteeg man soo si duggaate 10 000 revanche résultat bidou du changé su ma cat bi rëla yow si jur bitch toog leen seeni place ngeen xaar ñu laaj leen seen avis kan ngay diw bitch jamais de la vie man fuck you niggas anyway fuck you niggas anyway donc tu voulais niquer zo. ha ha ha boomerang tourne clip une nar a toog lay mel momo eni man le way jaga yaray malak sama son yi bindal sama touré mo ji bay mangi port di rally or di nali port lu fort dem sorti sali or bali nord mali sumay rap tu perds le nord ni mali fok fen ñu ngay posté ku tek ñu riposté si ngente ngay fop de gëna tup de vitente de mosquée jël coupe ni vicente del bosque rappé comme jaja def len di bi man la njaay rap poésie rim bébé a a ëpp versi plaza ëpp classe kuy rattrapage mais ça tu mieux baki anma god jigen nga melni ranma bay sa loxo comme mufas massa Fox madre, fox tata Fox são a cuca e pata Fiquei por rap e mais se papa Ah, ah, ah, reme, black, apa Não se bama, ele feito salsa Fox e feito... Sim, tonori Tchai, amei Sinhada, sinhada Sinhada Oh, la sinhada, la sinhada Zodala Sinhada, sinhada tey public bi après yeneen jugeant ah, kan moo gën a soxor si gars yi kan moo koy vrèche kan mooy number one bi kan moo koy dagate. Là, c'est tout seulement Hamza Dala. On a écouté Nidof bien sûr, euh, juste après Hamza Dala. Ils sont en big méga concert ce vendredi au stade Ibamar Job à ne surtout pas rater. Voilà, juste après, on va enchaîner, on va écouter One Lyrical. Ce que ça donne. gars, vous One. Et Dominique. gën ci nit mooy fi jon di doxantu neex man daal comme karaw ñëpp man lañ yenu beneen rappeur mooy xaru tabaski jot na alléluya paaka taat wala paaka baat Dominique sa xol daa xat paakatas sooraale wu ma leen ni café bu album bu laame ñu nga génne di ma dédicace wow album bi dafa bëri dut day san dépenser nga di nga puub ay san pour ni il ñesta su côté mel ni c'est du kay ta fami sal maa leen det ta vous êtes tous det kaawoo takk samay double taal déglu samay mélodie di vibe Tak nga doo puub lekk man di ci néga man dama la bàyyi foog sa royukaay nga ne yéene nekk la borom ma cay fanaan yéene naa la jàmm yéene la jama bu dese lu dul rap man maay sa baay dëkkal lañu comme kuy dëkkale barsak jara 2020 alasan. alassane jigo 2020 arena Jigo 2020 dudu class classico 2016 ba tontu nga moti dama ko oh. dip come on man of the year man of the year I'm the fucking man man of the year man of the year man of the year I'm the fucking man loo ñeme ñàkk loo ñeme kaaw fexeel ba bul daw assumel booy ragaluma coow potentiel lay doon këf xaalis su naar dem noos suna bukki biir golf jël naa maket ay kool jëm ngeen ci man ba sonn évidemment ñëpp lay time guddi bës guddi lay xool heure snapchat facebook facetime ku ci ñaan Dominique tolloo waaw ku ci ñaan Dominique tolloo waaw ku ci ñaan Dominique tolloo waaw maa ngi lay xaar alsan jigo gaay ma laal la 400 000 fois depuis boy la min syndicat kamikaze envie bomb ak sa wife fuck you dip, mai vainqueur final foog final maa ngeeg son yu dik nokku ñëpp ci deux ans de rap bi mu lay xam bu coow da ruux ni naar yow dëkkoo fu ñuy këfee sac di fi di da ngay jëro lavage ki am naa ay fan sa ci biir soxorti gi deretu góor sama si di pourquoi nga siis fintan nga mbiib man maay messi dictateur bi numéro 10 santan ci biif santan ci bit santan nga tit santan yowaan bu cuif boy pour man li gën a dip ci nit mooy fii joon yi doxantu neex neex bi ngay am foofu aw ji plaisir avant 4 de 8, bien sûr black de ma part tu m'as déçu wesh Yalla yalla, xeeb faut OG ma Macho rest in peace bang man of the year man of the year I'm the fucking man man of the year man of the year man of the year I'm the fucking man loo mes ñàkk loo ñeme kaaw fexeel ba bul daw assumel booy le macho, potentiel lay doon donne xaalis su sunar dem Soussou sul naa bukki biir golf dil naa maket ay kool jëm ngeen ci man ba sonn évidemment ñëpp lay time guddi buzz, guddi lay all euh. snapchat facebook facetime ku ci ñaan Dominique tolloo waaw danga ñeme ñàkk ma photo ku ci ñaan Dominique tolloo waaw da ñeme ñàkk bi ci ku ci ñaan Dominique tolloo Voilà donc, on a écouté Nidov, bien sûr, Hamza Dala, One Lyrical, les fans de Deep Dundugis, préparez-vous, hein. Deep Man, Sombo, Sohor, Ngaka Blende, Tontona, non mais ça sera du lourd. Voilà donc, avant ça, ils sont nombreux en train de nous suivre via la de la page King FM, Balagen, euh, Big Abattoir, ça fait plaisir, euh, Sec, euh, mes bro, Namnanlen, Mongi Cool, man, Bobo Fall, Lui Félix Ndiaye, salut les jumeaux, Balagen, Dominique Pereira, la Noire, Jay Douman, jox ñu prési FIFA bi mooy yëngal àdduna actuellement yee Nongo Drogba ba Amzo is back léegi-léegi rek tontu bi mat yeah donc continuez à nous suivre à envoyer vos textos via le net la page King FM et le JNP alors on enchaîne bien sûr avec Deep Doundou gars Deep, Dip mer na de gars Deep Mernade, de Deep Doundou Guiss tout simplement Deep Doundou Et eh, andi waa Reptile Music guy, le best là, exclusivité là. voilà donc euh, week-end bi Il y a ko moi ah, pour nos auditeurs loolu voir si Deep Doundou gars Deep Mernade Deep day ça. Deep Doundou ils sont nombreux aussi via la net la page King FM en train de nous envoyer des textos Mami euh, from Italy, euh, bisous à toi ça fait plaisir Mami en train de nous suivre via la net alors, euh, Didier Paco, mention spéciale à toi. Fantawan, euh, big up. Euh, Abunang, bonsoir à vous. Baba Tam Diop, Didier, franchement, je suis votre fan. Mon cool. Ngone Diouf, coucou, chou, Names. Samba Demaris, Lapino, big up à toi. Ça fait plaisir. Samba Demaris, le jumeau à Bokar. Boboufal, big up à toi. Sec à l'écoute de l'émission. Mary Gay Masha'Allah les jumeaux Pape Djoum, Cherou, Serou Yalaï, ziar Nenlen, Félix euh, salut les jumeaux toujours les textos Jay Doumen euh, en train de nous suivre Nongo Drogba Omzo is euh, voilà Lamine Jay di Mami même son Abiba voilà Nongo Drogba Deep dafa déclaré guerre grau, yeah Time Deep moi Tassare, buzz bi signé Mami andai Awa un contre tous un contre tous Deep, mu ngi ni prof bu joxe devoir toog nag di xaar feuille pour noter leen <laughs> Awa kanji ma wax Paul Marie Diouf nee na DIP rek moo yeah Gassama en train nous suivre Abdou Kamara, big up à toi Boulaye l'américain big up euh, ki nee na samba la ñu bëgg Samba Peuzzi Nongo Drogba t'inquiète tu l'auras Samba pesi ce mercredi en direct sur la TFM avec The Twins DJ PNG et Abba à surtout pas rater gannaaw ba Dip euh, Doundou Guiss euh, génnee son bi ngaa ko beneen tamit moom nee du bàyyi mu sedd waaw ngaa ko génnee na son tamit nee moom tamit day fayu ñu déglu ngaa ko balane lu mu wax man day sëriñ. King Day Day, King Day Sadiq, King Day Day, man agama Sadiq, man agama Day, man agama Sadiq, man agama Day, yo King Day Sadiq, so King Day Day, yo King Day Sadiq, yeah King Day Day, man agama Sadiq, man agama Day, man agama Sadiq, man agama Day, my King Baba Jai Funjagis Teeth, man Domalatte. kuy jàpp jaan doo faale jiit fu la xaj di maate ey bisi ni nga sa booy bi jàngee kuy laajte bandi ne ko jeel la yàggee dafa xam firidam prison la jàngee dafa gën a bëri jëm acca noo ko naan de dugg jeel seen bopp bi tëj seen booy yi tardé ay bat suñ siri ñoo koy taj comme ko am dese papa nga ko daal bay fal la ma moom la baar de maa dàq raam seen gars yëpp aca ko koy testé

Nangakablenda nenja nuta nukdun kuma swache Nangakablenda moita mwani gari abunyege Day seri King day day King day seri King day day Man akawa seri Man akawa day Man akawa seri Man akawa day Gak kalah fob, nak konek menampe Mandebe gak kalah bod, diko ayo nenek Mangaka blend and ain't no te nuk din kama swache Mangaka blend and ain't nego dem na maka Lega la baba moy jita jaka Sul na Pare ajar bari sen boy jaka Nyari raka sen lep boy bunda bi legi da maka Ngaka mo de drit Ngaka blend and mo starik mo sul tit tit mo kan nga ko blende li nga waxal yëpp ndaka dara dara dara du ci dëgg waaw dugg jeel gën a mbalit fo waaw mbalit bi wàññi sa mbirit ñi fesal la stade yi man la bala gérit fi ñeme na taxaw arbitre biri jëlal jëlal sa place mag de terrasse rek tamul de glace rek bis yi de paja fi ne ma nga cacho rek sa niveau be parafoné daje nañ ma tan ci ëñ mu ne day daanu rab wala day daanu gangru i flaak moo leen dàq clip te matali maat moo tax rab seen waa Papa nga ka la fab na ko neex mu nampe mandebe ngakhalabo ndikho ayo nene nangakabule ndandenyani utamuntu nkomaswache nangakabule ndamoitamwa nigga yi albunyege Hey, Seri, King Day Day, King Day Seri, King Day Man, I'm a man Seri, Man, I'm a man Day, Man, I'm a man Seri, eh. Man, I'm a man Day. Dakala eh. Ford, Nakone Hunampe, Et eh, où sont les fans de Ngaka Blende Bien sûr, euh, c'est comme ça avec des tunes DJ PNG que de la bonne zik pour vous tenir en haleine. Est-ce que mon est cool Est-ce que mon est nice Hey, eh, Babacar Dia bi nga ba toi nee na mu ngi naay. sont les blindés blindés. put your hands up. King Day Sari. King Day Day. King Day Sari. King Day Day. Man aka ma Man aka Day. Man aka ma Man aka Day. Yo King Day Sari. So King Day Day king day setting. Yeah, king day day. Man, I go Man, I go day. Man, I go Man, I go my day. My king baba, yeah, if you know man, don't my kuy jàpp jaan doo faale jiit fu la xaj li maate ey bisu ni ko fi sa boy bi jàngee kuy laajte bandi ne ko jeel la yàggee dafa xam freedom prison la jàngee dafa gën a bëri jëm acca noo ko naan de ko juge bi aate un milliard foo bi yee fajul gàcce fa lépp ngay néew bu la juge bi laajee dugg jeel seen bopp bi tëj seen boy yi tardé ay bak suñ siri job ñoo koy toj comme ko am dese papa nga ko daal bàyyi fan la maam moom la gars yi baar de maa dàq raam seen gars yi yëpp aca ne xaalis mooy dem sa carrière foo bee laay xam dana nga arrière man Baye Fall yéeme nga bu ma armé taalibe Cherif Fall laa du waay ne maa ni ko gëmal sa bopp dëggal sa wax bu dee raak dara dara dara du ma dëggal gëm loolu la jeunesse bi gëm seen bopp te damu prési bi moo lay financé ambaaru sa ambaaru sa ambaaru papa nga ka la foop ne ko neexu nampe man bébé nga ka la boot di ko ayo nenne Nanga ka kablende nenga nu te nuk dyn koma swache Nanga ka blende kablende mojta mua nigga i e bunjege King Day Seri King Day Day King Day Seri King Day Day Man aga ma City Man aga ma Day Man aga ma City Man aga ma Day nga kala fop na ko neex mu nampe man bébé nga kala boot di ko ayo nene ndax nga ka blende ne njanu te mug duñ ko mos wàcce ndax nga ka blende mooy te mooy ndiga yi ër bu yéege suul laajte nga ka ne ko dem na maaka léegi laaji baaba mooy jiita jàkk suul na gaay lekk seen nakk pare ajaat baari seen booy jàkk ñaari rakk seen lépp tàkk seen booy bu ndaw bi léegi daa màgg nga ka blende moo de drit nga ka blende moo sarik nga ka blende moo sëtëtët nga ka complain, the more get it. kon ngaa ko blende liñ ko waxal yépp ndaka dara dara dara du ci dëgg waaw dugg ci el génne mbalit foo waaw mbalit bi wàññi sa mérite ni fesal la stade yi man la bala gérit ku ñemee na taxaw arbi de piri jëlal jëlal sa place su mag de terrasse rek tamul de glace rek bi ci dépêchage bi jafiné ma ka cachation rek et il se nomme seulement Ngaka Blindé voilà donc il a sorti pas mal de tubes de hit mais on va écouter bi nga xamante ne tey la génn Baba Dawul Coow boobu moom dafa sadik quoi gars ñu déglu ko et puis juste après bien sûr revenir avec nos auditeurs

jàppatal TFM ñu seetaan chéri Marichou bi waa buba ndur mi mer ba du birima moo ko taxal yow président FIFA Afrique tax mënul jot ci coupe bi nit bi ñu lekk ngeen bañ Sadio Mané Ballon d'Or kili bu semaines deux cent mille vues sëtëtët bii flag est-ce que doo ci jéem a jàpp ñu may ko koor ñoom sax tàmm nañ di fay pour ñëpp di ko coow léegi nañu woo itel ak free comme ça ñu booste ko ba amoon xaalis doo ko audio da ngay clip bro amoo fric bro da ngay ngiroo ma ngay cric bro markatu taatu si xamel sa zig bro amoo fit bro si micro yow la king glow ak loo def sa xel xol bu bon daf lay taxandool grand théâtre bu coole gën fa show wax ko Léopold dem la gën a ñuul gën la lëndëm gën la la doome raame ci raam yóbbu la ci musique bu dem Barrio. <laughs> yow soo ma gëjee dégg dama jël yoonu IDB ah. toppandoo ci rab ci clip sa xel bu IBD ah, King Baba Ndiaye ngaa ko toftal ci BLND ah. dama ni a sa rappeur laataa ma naan bee la dee ku may tëkkaleeg bi rappeur danga nga gumba gisoo ndax ndalu abaa ku mu marqué rek yaa ngi comedy show yow da ngay saaga foo damay fo rek BLND yeeku na moon benn conseil jekkul ci yow bàyyi ko suma sañoon Galsen à Paris Tafa tëgg Galsen à Dakar kon naa téegal san ba gaa seen aakataar baaba dawul coow saxaj dawul mbow album bu sol ndox ñu teg ci tefes la buy dawal joow ñii duñu mës gis baak ak lu ñu yàgg si teen bi ku am jàmm ci game bi rek ngaa kaa yàgg ci jeel bi <laughs> baaba dawul coow yaay sama gaay direction 2020 double album arène nationale waaw est-ce duñ ko defee Léopold Sédar Senghor sax def ko ak Orange <laughs> nee na est-ce duñ ko defee Léopold Sédar Senghor quoi non mais ngaa ko yaa ngi tooñ benn sànni xam nga ne Léopold Sédar Senghor biib moo ko moom nootoo tego voilà donc c' est comme ça gars yi dégg ngeen euh, pas mal d' artistes rap bi ma macha allah dafa dóob dafa soxor voilà gars yi ñooy génnee ay hit ay son ay album ni daf Amzo Dollar One Lyrical Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé voilà donc. Euh, tey dinañ si waxtaan quoi dinañ si débat c'est permis aussi ngeen woote ku si nekk joxe si avion si game bi tey naka ngeen ko gisee waaw game bi tey léegi ak clashante bi gars yi noonu gisee game bi léegi ñu ñoo ngi naan affaire bi ngaaka la ñu ñoo ngi naan affaire bi déeb dundoo gis la ñu ñoo ngi naan One Lyrical la ñu ñoo ngi naan Omzo la ñu ñoo ngi naan Nit Dof la voilà donc bëri nañ ah nouvelle génération bi nga xamante ne ñoo ngi tasaare game bi actuellement voilà c'est permis ngeen woote mala envoyé vos textos via la net la page King FM ngeen wax ñu si seen euh, il est 23 h passé de 5 minutes dans le P1G Show alors sans tarder on va écouter euh, ce qui s'est passé le week-end oui ce qui s'est passé le week-end pour les mélomanes de football Nous permettre gars yi ni jëndagum crédit comme c'est un message de fait que ce qui s'est passé le week-end euh, championnat France Angleterre Italie et puis juste après on revient pour le direct au 88 628

nañ clashante mais nga ne bëggoo laal ki nga bëgg kan mooy sa fans number one yow si si rap Galsen bi yow. man bu dee rap dëgg ki tax may kife rap Kaana Baas la te heureusement dib laalu ko ci clash bi. ah yow Kaana mooy sa artiste mooy sa rappeur. Ah, eh, diib laal na ko de parce que diib nee na ñoom ñëpp maa leen maa leen suul ah ñoom ñëpp ñoom ñëpp a xeewi. <laughs> non laalu baas. dugalu ko. ñemewul ko ñemewul baas. ah. Mhm. ok léegi Ngaaka Blindé tamit tontu na. Ngaaka c'est mon frère d'amour moom lu mu def maa ngi ak moom boo mu nee mayaat baaba dawul coow bi ma jël. kon yow boobu dal na la baaba dawul coow. Ah, kon yow da bëgg coow ko da nga bëgg gaay di neexal game di ko safal. xam nga lan la dañ ko laal nag damay toog seetaan faraluma kenn sama yoon nekkul seen clashante. yow jox number bi rap Galsen hip hop bi kan lay doon. waaye man baas. tax may déglu rab wax naa kaana baax kaana nu muy mel kaana Fatima alors naka euh, ce week-end ça s'est passé comment Fatima ah, ça s'est bien passé on passe une soirée de au Dream c'était une première tu étais à la soirée des jumeaux PNG au Dream aux Almadies ah oui pour une première voilà Il a des robe bu rouge yaa ma gën a robe bi gars yi ñoo ngi koy waxtaanee de. <laughs> xale yi am na nu ñu tuddee genre robe yooyu noonu aj xaw ma naka lañ koy tuddee aj xaw ma naka. lan lañ ko tuddee. booy am na nu ñu koy woowee daal nee nañ aj xaw ma lan daal lañ lañ koy woowee robe bi nga solo noonu. waxal yow noo ko tuddee en tout cas daal voilà di leen souhaité waat encore une fois ñu ñu ñu fête ko ay année yu bëree bëri bëri donc neexoon na j'ai dansé neexoon na daal voilà quoi. ok Fatima. Dites que tout le monde est Birthday aussi à Rara et à Sukaina Badji et aux autres natifs. Tal aussi anniversaire à Mehona, de même que nous, Moumou, à Kimadon Waiki. Voilà, big up à tout le monde. D'accord, Fatima, n'oublie personne alors. Ok, ciao. Allez, gros bisous, elle se donne tout seulement Fatima. Faites comme Fatima, bien sûr. Elle vient de nous appeler au niveau des parcelles. Zasseni voilà donc euh, mention spéciale à elle Waterland, nous avons tamit euh, lan na blen de mais moy artiste number one motax muy rap galsen sen motax muy déglu hip hop kon Canabas gay néna nam nañ la toujours vos aussi via le la page King FM entendez nous suivre Sira Duma Baby Aminata Diallo gros bisous à toi depuis les parcelles faut appeler hein. Barhima Barry, Nice P Nongo Drogba nee na jaajëf DJ moo ngi cool AIBD wala AIDB ngaka moo Sadik waay Babacar Dia wow, P moo ngi cool Fina Dadeta salut les jumeaux je suis en retard mais moo ngi nice hein. je veux le son de Dajou, hein moo xamul tay lu gaa Pape Moussa Kane bonsoir Fallou Diouf salut PNG moo ngi cool c'est Fada King Family P moo ngi nice Mamadou Samba good job PNG liggéey bi c'est top Ndiaga Seck big up à toi Alioune Tall Sophia P bi couture euh, nice Sophia bisous à toi dara théâtre bu coow la gën fomm show wax ko Léopold dem la gën a ñuul gën la lëndëm gën la nekk dem gën la doome raame ci raam yóbbu la ci mise bu dem Mario. <laughs> yow soo ma gëjee dégg dama jël yoonu IDB ah. toppandoo ci rab ci clip sa xel bu IBD ah, King Baba Ndiaye ngaa ko toftal ci BLND ah. dama ni a sa rappeur laataa ma naan bee la dee ku may tëkkaleeg bi rappeur danga nga gumba gisoo ndax ndalu abaaku ku mu marqué rek yaa ngi comedy show yow da ngay saaga man damay fo rek BLND yeeku na moon benn conseil jekkul ci yow bàyyi ko suma sañoon Galsen à Paris tafaa tëgg Galsen à Dakar kon na téegal san ba gaa seen aakataar baaba dawul coow saxaj dawul mbow album bu sol ndox ñu teg ci tefes la buy dawal joow ñii duñu mës a gis baag ak lu ñu yàgg si teen bi ku am jàmm ci géem bi rek ngaa kaa yàgg ci jeel bi Et eh, C'est comme ça, c'est reparti, l'ambiance au 88 128 99 90, les textes n'arrêtent pas de tomber aussi via le 244 22 22, salut les jumeaux, c'est surtout Ali, Medina, Ferbi, Ngaka, Blanel, salut les jumeaux, franchement, chapeau à vous, Lingendi Def, Nice, Nancy, Njoba depuis euh, Parcel, Love sur vous, euh, Marema, Pokora, salut Didi, Clash, Bimom, Safna Sap, chez les rappeurs, donc euh, ça fait plaisir. À l'écoute, Marema, Pokora. Isman salut le frérot, je t'en bien sûr. Euh, la vidéo, euh, les vidéos d'anniversaire. Euh, Anna, bisous à toi, ça fait plaisir. Tim, Yves from Gossas, on dit quoi Marie, mention spéciale à toi. Beros, Lemzo from Auchan à l'écoute de l'émission. On continue toujours avec de la bonne zik pour vous accompagner. On est là jusqu'à 0 h je dis bien PNG The Twins DJ. Au plaisir de Fatima. Cabecé. <laughs> Vàng này nhau. Bà bắt đầu châu. Yeah. jàppatal TFM ñu seetaan chéri Marichou bi waaw bu ba ndur mi mer Birima moo ko taxal poos yow président FIFA Afrique tax mënul jot ci coupe bi nit bi ñu lekk ngeen bañ Sadio Mané Ballon d'Or kili bu deux semaines deux cent mille vues sëtëtët flag est-ce que doo ci jéem a jàpp ñu may ko koor ñoom sax tàmm nañ di fay pour ñëpp di ko léegi nañu woo itel ak free comme ça ñu buste ko ba amoon xaalis doo ko audio da ngay bro amoo fric bro da nga ngiroo ma nga cric bro markatu taatu si sil sa zig glow amoo fit bro si micro yow la king glow ak loo def sa xel xol bu bon daf lay taxandool grand théâtre bu coole gën fa mu show wax ko Léopold dem la gën a ñuul gën la lëndëm gën la nekk dem gën la doome raame ci raam yóbbu la ci mis bu yow soo ma gëjee dégg dama jël yoonu IDB ah. toppandoo ci rap ci clip sa xel bu IBD ah, King baaba Ndiaye ngaa ko toftal ci BLND ah. dama ni a sa rappeur laataa ma naan bee la dee ku may tëkkaleeg bi rappeur danga gumba gisoo ndax ndalu abaa mu marqué rek yaa ngi comedy show yow da ngay saagamal damay fo rek BLND yeeku na moon benn conseil jekkul ci yow bàyyi ko suma sañoon Galsen à Paris tafaa tëgg Galsen à Dakar kon naa téegal san ba gaa seen aakataar baaba dawul coow saxaj dawul mbow album bu sol ndox ñu teg ci tefes la buy dawal joow ñii duñu mës a gis baak ak lu ñuy yàgg si teen bi ku am jaamu ci game bi rek ngaa kaa yàgg ci jeel bi baaba dawul coow yeey sama gaay direction 2020 double album arène nationale waaw est-ce que duñ ko defee Léopold Sédar Senghor sax def kook ak Voilà donc 88 99 90 c'est reparti le live en direct avec euh, Pi avec G euh, euh, en direct sur King FM on vous rappelle ce mercredi bien sûr à partir de 16h hein, ne surtout pas rater bien sûr oui Miroir du Sénégal c'est permis aussi de suivre l'émission il y aura des invités pas tout à fait comme les autres qui vont nous accompagner c'est permis aussi là-bas d'appeler et de gagner pas mal de l'eau voilà pour vous faire plaisir c'est le mois de décembre c'est le mois le plus beau, bien sûr. Voilà, donc comme vous le savez, PNG, ils seront en tournée euh, le mois de décembre. On va démarrer bien sûr euh, le 24 euh, du mois de décembre. PNG, ils seront à Sali au King Club de Sali. Voilà donc une mention spéciale à tous les jeunes Mourois. Le 24 décembre, PNG à Sali. Le 25 décembre, PNJ, ils sont à Dakar, euh, ici aux Almadies, juste après FAV, juste, euh, voilà, bien sûr, en face du brioche euh, doré, voilà, de Goryov. Dream Sport American Bar le 25 décembre. Et puis le 26 décembre, PNJ au Mix Club de Fatik. Donc, à Fatik, préparez-vous. Le 26 décembre, on sera là-bas. Oui, à Fatik, lendemain Noël. Et puis le 27 décembre, à ne surtout pas rater, le 27 décembre toujours au Mix Club, mais de Saint-Louis. Donc, Waluga, wa Saint-Louis, préparez-vous. Le 27 décembre, PNG Nyong Birnda. Ça sera du lourd. Le 28 décembre, samedi 28 décembre, PNJ, ils sont à Thiès, de 0h à 5h du mat au SAMS Prestige de Thiès et le 29 décembre au Sun saloum de Kaolak. Donc à Kaolak, préparez-vous bien sûr, ça sera du lourd avec les 20 DJ PNG wa Sun saloum le 29 décembre. Et puis, bien sûr, le 1er janvier, comme vous le savez, on est avec l'artiste planétaire Youssou Et puis, le 4 au niveau du 6 Donc, voilà le programme des jumeaux PNG pour le mois de décembre. On invite tout le monde. Les tickets